leen mu dem yow la daal di nga wax cere te ku ne cere daal di nga wax bomb te ku ne bomb sa xel dafay daal di dem ci beurre Jadida waaye kat yi du des ginnaaw ci suñu togg dañuy daal di jox guubu neex a neex xam nga ni nag boo lekkee sa cere ba pare sa xel dafay daal di dem ci naan meew te xam nga ni meewu alit moo ci gën a baax. Sénico di leen wax jërëjëf di leen wax tamit déwénati salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kii du xadi. borom léegi mbaa ngi nii tubaarkàlla fa tala wax du am. ci rond nga am. légume bu fere ba mu leer. dama fas yéene cere. tam xarit dinaa soxla tamaate ñamb pour cere ji dinaa soxla ñambi tubarkalla dinaa soxla tubarkalla pataas xam nga pataas dafa baax dinaa soxla carotte waa chou pomme masala ah fere. ak cukkili kaani cukkili bi tubarkal da koy neexal xale dañ koy dëbb peeseel ma benn bu ne xadi nag bu leen ko fàtte dama leen di wax mi ngi fii ci rond point Yoff bi tubarkal masala tout ce qui est cere lépp lu nit di soxla ci cere mi ngi fii jarta dem ba marché ñëw leen ci xadi mu peeseel leen lépp loo leen soxla ok boo neexee jox la saak ba pare joxal la ko livreur mu indil la ko wax du am après numéro boobu ngeen di seen mooy numéro xadi ngeen woo ko <laughs> mu livré le ay ca salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne tubarkalla yéen a toog seen kër di ma seetaan maa ngi leen di nuyu waa tubarkalla ñu ñëwaat nag ci émission cere cey cere ji nag tubarkalla ma ànd seeg ay sponsors yi doy waar muy kan muy ah, légume tubarkalla xadi xadi légume mu ngi nekk si rond point Yoff waaye ma ànd ak ñi nga xam ne tubarkalla mooy waa kadi ñu indil ma diwli ñu kadi andil ma li nga xam ne mooy bëru kadi andil ma li nga xam ne mooy kadi en personne ma di ko motoxal ah ak ñamu àndal ah, ah, meewu kànjaan tubarkalla masalla waaye ma ànd seeg nga xam ne ñooy Touba gaz gaz bu góor gaz bu gën a gaaw tubarkalla masalla waaye ma ànd ak ki nga xam ne mooy Linguère cere Linguère la ñu wax tubarkalla cere ja laaloon nañ ko ba pare da koy kaas rek daal di koy tayaat benn tay rek la laaj cere ja jox la li nga soxla laalo noonu ba noppi xanaa kon Linguère a pare dañuy dugg si biir moom woon leen tey kan ngeen di am ci cere ji ki ngeen am ci cere ji nag ku ma xam la xam naa ko loolu tubarkalla ba az sénégalais yi tey ma woon leen ki nga xam ne kooku laa àndal ba dara dul dara di ngeen gis léegi kiito war a togg cere ji kaa leen ñu dem ñu xoole cey cere ak nan la ko nar a toggee ñi nga xam ne yéen a doon ki nga xam ne moom moo war a togg cere ji kii togg cere ji nag dërëm la ko ñëpp di wax waaye man tàkku géey laa koy wax pour waa parcelle xam ne kii di togg tey cere ji tàkko la mais comme dërëm la ñuy wax nañu ànd ak dërëm jéeg tàkko ji yëpp jaxase ko tey na moom moo fas yéene togg cere te kenn ku ne xam na ne bu nee cere ñoom ñoo moom cere dañ koy bàyyi nag tubaarkàlla mu décortiquer ñu ko tuuti comme teg nañ cin bi tubaarkàlla ci Touba gaz ku ne xam na ne Touba mooy gaz bi wóor te sakkan te gën a gaaw am na ay kilo yi kilo damay commencer par nànk damay nuyu ko ba pare bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di so teg cin li sotti sunu diwliñ attaqué ko direct mu départ xam naa ko rang muy gaaw la ñuy dund tàkk nuyu waa Sénégal ci cere bi am mbégte kontaan te jàkkaarloog sama rak muy Pendo Guissé di ko wax ne tubarkalla macha allah ni nga ma bettee neex na ma ànd ak ñu am doole nag muy diwlin bi nga xamante ni ah, moo yëngal jamono ah, moo fa seeni cee togg tere mbomb ju amul fenn ci Sénégal du ñu fan si yëpp di wax ne ah, nañu toog tam xarit bi pour Pendo la ak dërëm dara du la du ñu maye dara rang muy gaaw diwlin kat gaa ngi day daw rek amul arrêt sorti cin bi day daw ay ca amul arrêt amul vite fait. tey ngeen gis cere ju ju neex. ju musul am fenn xoolal ji diwlin oyof na. ñaw tubaarkàlla macha allah. loo ko jox mu delloo la ko. parce que oyof te eh, doo ci saaf mu doole. ba pare ñu ànd ak eh, ñoo bari doole. jolof viande. sim jolof viande moo jox ndawal li moo la jox ndawal lu riis lii. yëpp lay jaay ndawal lu bëy ndawal lu xar ndawal lu nag ndawal lu gële. ndawal yëpp lay jaay. ah mu kon na leen ngeen soogu jolof. jolof viande tubarkalla macha allah. yàpp bu mu jaayu baaxul fi nii fi temps bi toll nii. waaye ceeb cere li ngeer. laay laay li la cere ji nu laa la ba pare. dama tiit dama jaaxle. comme daal ku ànd ak ñi ñu àndal lu ñu neex laaj. lu ñu neex laaj ak xadi légume borom légume yi fere yi. waaw mu tubaarkalla def naa ne ñu ngi ñu songee ñun ñi nga xamante ne ñoo ne ci waañ yi am nañ ci mbégte. xade ngi fii ci rond point bi. ah comme soriwul rond point Yoff ah, ay saaku saaku la koy jaay. def nañu ne instant yi nag eh, période tam la ñu nekk. ndax eh, tam xarit bi ñëppay soxla lu ñu fere. légume xade léegi naa moom dafa takku taxaw rek. pour benn kër bañ a manqué ah, gis nga tamit eh, diwlin kadi bi. waaw am nga diwlin yu baax nii lay mel day transparent ba pare am na wayul am na diwlin yoo xam ne Pendo day way. waaw day way te bii gis nga ko. Mm. tubaarkàlla oyof na. oyof na jëlal lii. comme ni ma koy sotte wala wala dégg na lii gën nga koo dégg de. <laughs> lii rek mooy suñu métier tubaarkàlla. barki Seydina ma xam Dakar ba Tamba. balaay di def <laughs> uh, promotion. après loolu après laa leen koy wax ne kii kan la. après laa leen koy wax. ayca mi ngi noonu sotti nañ diwlin. Eh, bu ko nañ kanit ba pare léegi dañu koy may naan diwlin ji tàng Touba gaz bi xam naa ne léegi mu tàngal ko ndax dafa gaaw Touba gaz laa àndal te li may àndal eh, bu ma ko àndee sama togg day gaaw hmm. du xam gaaw na torop gaaw du xam te dafa sakkan ba pare dafa am ay 6 kilos am 9 kilo am 28 kilos am trent 38 kilos déggal li ndimbal jaboot dikk na dikk leen seetaan tubaarkàlla lii la ñuy wax ci Touba gaz ku ànd ak moom li ngay yootu da nga ciy jël. jëlal lingeer ngeen ngi noonu dañ koo laalo ba pare. ak ah, ay dëgg amatul wax. xool la ma kaas xool la ma kaas léegi léegi dañuy xaar ba ñu pare. Mhm. ataa ko. waaw dañuy xaar man na ngeen baal ma di tàkko ngeen xam man dama jékki-jékki di ko dërëm ak tàkko bu ngoog ngay jël léegi dërëm bii nag moom cere lingeer cere lingeer ji dañ ko laalo ba pare mhm. ba pare amul tànn amul euh, xajamu deful dara te laaloon nañ ko ba pare te benn tey rek ngay tay kon bu si kanamee dinañ leen woon cere lingeer lan lay liggéey du dëkk kon dañuy xaar mu tàng nga daal di sóob daal di am loo ko bool leen mu dem yow laaj ko fatu bàjje ko bul verse ko bàjje ko ndax mu xam sa njëg bàjje ko bouleversé ko mani beese ko ndax mu xam sa njëriñ lëmbal bi leen di yëngal ku koy tëgg bu ko may jee tëggul kenn du ko bomb nag mi tëra tataani na dalaa yaay yor filingam mu yor sa filing dalay teel ngeen di ma fëgg ma lal sama lal ngeen lal li ko su ma fayee suma lamp ngeen di ko taal su ma génnee sama kër ngeen woowi ma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar gi ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna duute cappe Ah, li ñuy wax ne suba ba léegi ah ñu ngi ci cere ji cey cere ñu tey nag ñu seet si ki nga xam ne moo di dërëm mu toggal ñu cere ji nga xam ne tubarkàlla macha allah dañuy wax ne alhamdulilah comme commencé woon nañ ko ci alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilah ah, rabbil alamin du noonu noonu neex na. dërëm togg na ci cere ju neex joo xam ne tubarkàlla cere ji sonn ñu ci nag ndax dafa am ay sponsor yu am doole yu ñuy àndal bu ñuy tollee ba fii nag bu ñu nee cere boo nee cere danga naan meew. Mm-hmm. meewu kanja. dafa nekk meew boo xam ne tubarkalla macha allah ñun tukkulóor yi dañuy berfee tuuti cere yoo xam ne dañ koy booleeg moom waaye tubarkalla su ma demee bandar fekk sama yaay ja ne Diop ñoom bu ñuy lekk nii lañ ko ciy sottiwaale nii la meew mi nag maa ngi koy digal képp koo xam ne meew kanja maa ngi koy wax képp koo xam ne yaa ngi ci tamxarit bi nan ko naan parce que mooy meew mi gën meew bu neex tubarkalla macha allah am na entier ak demi crémé am crémé am crémé am demi crémé am entier am un litre diabétique am waaw am na sax bu tubarkalla masala bu ndaw bi mhm. waaw mi ngi noonu la ñetti façon la am na bu mag am na ba ca topp bu ndaw du noonu voilà léegi nag ñu ànd ceeg ñi nga xam ne mooy borom cere ji mhm. borom cere ji nag mi ngi tudd lingeer cere mhm. lingeer cere cere ji ñu laaloo la ba pare seet nan ko seetantal nan ko amul tànn jarul bees la cere ji euh, xajamul te benn tay rek la la demande donc da nga koy jël kaas ko muy lingeer cere da nga koy jël kaas ko rek bàyyi ko tuuti mu nooy fudd tubarkàlla nga daal di delloo tay ko benn tay rek daal di koy yàq lii de mooy cere cere lingeer dem leen ngeen songi ko tubarkàlla ci tam xarit bi dafay baax ñu ànd ak nag ki nga xam ne moom jàppale ndax nag bu fekkee da ne jolof viande ah waaw mooy boro kiy joxe ndawal li ndawal lu nag la ñuy jox ndawal lu nag bu nooy nepp tubarka xam naa nag bu ndaw la waaw nag bi te nag ko doxul ba sonn jolof tubarkalla masàllaa ah di jaay yàpp xar yàpp nag tubarkalla ba ci gëléem jolof viande képp koo xam ne soxla nga ko di nga gis numéro baa ngi noonu di jàll ci suuf ñu ne deetawaay ñu ànd ak ñi nga xam ne tubarkalla mooy kii togg nag ndawal li muy kan muy ki nga xam ne mooy xadi légume xadi légume nag boo leen ko gisee mi ngi fii ci rond point Yoff bi moom mooy joxe légume yu baax yi frais yi bu ngoonee ah, ay 5 heures 18 rek tubarkalla saaku yaa ngay wàcc mu frais loolu jóge ca yëf ya xadi légume moom la mooy joxe légume bu frais boobu waaye nag ki tax ñi togg ko tubarkalla masala mi ngi nekk Touba gaz mhm. Touba gaz nag am na 6 kilos am na 9 kilos am na 38 kilos mhm. ngeen dem jëli ko am na tamit beneen fourne boo xam daf ñu koo àndil tubarkal te yombalal ñu ko loolu dafa mhm. sakkan ah gaz boo xam ne gaaw na tam gaz bi da nga koy jox ultimatum nga koy jox ne ne boo ko déewee nii taxawal ci Touba gaz ne ko na ñor léegi nii day ñor léegi nii parce que dafa gaaw benn tubarkal benn euh, boo xam ni 15 euh, kilos da ciy ci nu 15 kilos bi tubarkalla masa da ciy teg dem leen ngeen seeti Touba gaz gaz bi wóor te sakkan loolu muy mm. Touba gaz te Pendo la ci gën a neex mooy euh, Touba gaz gaz bi ngay teg day posé te sa ah. sa ci nduxam maa la wax ndax am na gaz yoo xamante ni mm. yi nga xam ne du ma ko tudd mm-hmm. euh, boo ci tegee mm. feu bi day gaaw ba xam ah. ne li ngay togg day dar Touba gaz dangay wàññi gis nga day day wàññi li nga ko laaj rek la lay jox li nga ko la lay jox Touba gaz moo wóor moo wóor ñu pare tubarkalla waaye nag li nga safalee. waaw muy kadi ak li nga bombe muy bëru beurre kadi. dégg lii nga vinaigre vinaigre kadi. moom laa raxase ginaar gi ba mu set. ah waaw baax na xam nga nit ñi dañuy gis vinaigre bi sax ci publicité bi. foog ne ne ah, cere du am vinaigre mhm. cere bi du am vinaigre mais mhm. vinaigre bi mooy dindi xetu ginaar gi bu la neexee koy ba mu set boo bëggee cere ji farax waaw nga wis wisal mais waaye ñu ci bari dañ naan moo soos nit ñi pour ñoom vinaigre pour soos kese la da nga ko ci raxas mu désinfecté ginaar gi dindi xet-xet yeeg yëm seen mhm. comme daal ñun gaam la ñu togge gaam la ñu jox ndax kadi am na diwlin diwlin bu set wett du way kadi doo ko dëbb doo ko motoxal jëru mhm. alteeru duuti doole da ngay dagg rek sotti ci daal di daal di wóor mu jox la goût bi la neex bi nga soxla xadi nag euh, kat yi day nekk euh, bouillon boo xamante ni mu mhm. ngi def feuille flamme ci biir marché maa la wax loolu ndax kuy togg te boole woo ko ci gaam lañ ñu indil gaam lañ leen tegal xanaa xadee mën cay beurre ba ci wala <laughs> beurre bi goût bi ci nekk mhm. marguerite de table la goût bi ci nekk amul fenn pour togg la kenn du ko def ci mburu pour ah. bomb cere la wala ah. vermicelle wala couscous ah. am na ñoo xam ne pour lañ ko jox ci mburu sekkee ni jawee ni mel ne mado ñu raax ko ci mais kenn du ko def ci mburu parce que pour lii la pour cere ko tax a jóg vermicelle couscous comme dem leen seeti marguerite de table kadi mi ngi lëmbee réew mi te defe naa ne daal tey gaam rek la ñu toggee. tey gaam la ñu toggee la la waaye tubarkalla ma koy eh. yow bu baax a baax. di la sant bu baax si toggu cere ji ndax ku dem ca euh, waañ bi dafa tàng. Mhm. nit bu toggee jërëjëf nga ko war a wax. ba ñu paree ci loolu nag maa ngi gërëm ma sataak ma seer naag bàyyi Modou Kane mi may gunge ci li nga xam ne mooy cey cere. di leen wax ne leen nag lii moo nekkoon cere ji léegi euh, dërëm dañ laa gëj a gis wala dañuy lekk ba pare doog la ko laaj wala dañuy lekkaale di la ko laajaale. lu la neex defal. foo ne. boo yoon da ngay sifaale. amul arrêt day dem rek. ñuy demaale waa ñuy sifaale. <laughs> ayca. ñuy gërëm ñëpp ñi doon seetaan nag yéen ñu ngi leen di gërëm di leen. ànd ak doo ma laaj sama robe bu toog. waaw robe bi foo ko foo ko ñëw laaruus de la rose de Ngor la rose de Ngor ci rond point Ngor. waaw moo jaar ci robe bii ma sañse après dinaa joxe numéro téléphone bi. Mhm. bu ko defee gars yëpp mën a dem foofu ci la rose. Euh, euh, madame Seck mu defar leen robe yu nice ay ci bokk euh, bon appétit. waaw ñu ñuy seetaan ndax mhm. tam xarit la ñuy wax. koo koy yekkal. maa ngi koy yekkal sama chéri monsieur Faye. ndeysaan du Doudou Faye. Eh, sama lébu bu ñaawul boobu nga xamante ni seetaanuma benn yoon lépp lu ma ne rek moom fi ndax nee nañ doole yi saxaar raay mhm. waaye doole yi jën ndox te moo doole jigéen góor doole jigéen góor moo nekk sama ginnaaw ba lu ma songu man koo daan comme fay biram pend waagaan du dugg <laughs> waagaan naar ami puy moom laa ko tuddee. soo ko yekkee nag man tamit tubarkaal doo tudd sa jëkkër ma toog. tuddal de tuddal surtout Alburi di ko wax. ah, ah. waaw waaw surtout Alburi Ndiaye boobu laa koy mais maa ma nga daan borom gëdd ga ci a leen la dama koy ah, yekkal lii tubarkaal macha allah forom Thiès ak sama grand-mère soxna. tubarkaal macha allah nag comme sunu mm-hmm. euh, xarit la te kii. ñoo dañoo yàgg ñu nekk xale. ñu feccandoo ñu nekk donc dañ koy nga xam ne. Mm-hmm. mooy sunu xarit jë asu sare ba sare jooju tubarkaal la te baax gën a riis jaay su sare from États-Unis ñoo ngi koy may ndax boo gisee toogaay bi war ngaa mën a kontaan donc jee ñoo ngi lay woo ci cere ji séeri Abdoulaye Dem ak sa njaboot gépp ci barke yonent yàlla moomu du ñëw leen ngeen lekk cere yaayu cheikh yi du ay foo ndax euh, ñoo ànd petit ba grand dara ñaawul mhm. di ko ko tibbal moo ko céeréem laay dem mhm. ak sëriñ Fallou ak euh, mhm. Aïssata Jéeme ñoom aado parce que nee naa ami de d'enfance c'est play may ami de d'enfance jërëjëf jërëjëf nekkoon fi sax di Amina d'enfant d'enfant Sall ñi nga xam dañoo àndoon di fecc bale di woy di théâtre di xeexandoo ñoom Fama uh-huh. ñoom Say Cissé <laughs> ay waay boo limee mm-hmm. fii ngay fanaan di ko may képp ku nekkoon ci troupe bu démb rek ak ñoom Oxu ñoom Tafa Gueye bu ñu limee dañuy fa ñoom Golda Sy ndeysaan borom Paris ñoom ñëpp daal cere ji bëgg naa am ñu ñam ko ku nekk xam naa ne di nga savouré mais ñun ñu ngay ñamal saf bi maag pendo jëlee donc kaay leen ñu lekk yéen ñëpp lii la def nag dañ fee jaaroon rek tubarkalla maa ngi demaat feneen ci beneen cere. du noonu bon appétit. ku bëgg ku bëgg kii nag nu mu tudd ci ci ci meew kànja bi dama wax. la de. waaw hmm. ah, mami lii lan la. ma wisal leen. Hmm, na de. ma wisal leen. wisal ba mu saf. ma wisal leen mu yëngal. liggéey ma wisal leen. waay wisal ma wisal leen. waay siimal ma wisal leen. jéego siimal mu kanja. waay siimal ma wisal leen. siimal siimal ma wisal leen. waay siimal ma wisal leen. waay siimal ma wisal leen. ma wisal leen. neewu kanja. ma wisal leen. ne ko taajaboon. taaja boon taaja booni naar woy taaja boon taaja booni naar